corona bi moo yàq làmb ji. mais su tey bi war nañu fekk instant heure bii ñuy jëlañ jëlañ. waaw waaw comme affaire bee ko yàq. ñu ñëw ñàkk ñu jëm a xeex ak moom rek ñu ñëw ñàkk aussi. voilà ñu lancé message que citoyen yëpp nañu ñëw def comme ñun. waaw dañuy ñëw ñàkk si xeex xeex xeex euh, feebar bi. voilà ah xalifa bi ñàkk na jantam waaw macha allah sendo dafa jëm def man ñëw naa sama njaboot yëpp ñëw nañ écrit yëpp a ngi nii ñëw nañ ñëpp dem si donc citoyen yëpp nañ ko def seen combat bopp dañu dem ngàtt ji ñu xeexandoo xeexandoo jaajëf voilà mu ngi noonu yàlla may na amiin maa ngi sama sa sama cadre de vaccination. donc fépp fu ma bëgg a dem mën naa fa dem léegi ak sama cadre. ok.